mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah laata may sori ci kàddu gi dinaa dellu ñaanat leen ñu defaat une minute de prière ndax li tax ma ñaan loolu Birame Souleye Diop dafa lim léegi ñi nga xam ne ñak nañ sen bakkan ci li ñu boole ñun ñëpp moy projet bi yalla def ñu sakkan lool waye place bi ñu dajé tay juromi at ci gannaaw dañ fi dajé won def fi meeting meeting bi matulon xaj sax ci li fi dajé tay ñu pare meeting ba kenn ci ñi fi nekkoon di suñu jigéen di jigéen bu am gëm-gëm am pas-pas bëggoon projet bi lool dëkk fii rekk ci gannaaw ay Samba Mboy daat koy faagaagal tey njaboot a ngi mi fii toog ci tànt bi ndax bàyyi na fi njaboot loolu rek waroon na tax ñu taxawaat tuuti jagleel ko ñaan waaye buñ ci boolee li mu lim yépp defe naa politique yàgg na Sénégal trop waaye lu daje ci diir bu gàttee nii ci ab parti politique boo xam ne song nañ ko fitnaal nañ ko duma nañ ko rey nañ ko tëj nañ ko kaso defe naa amagul senegal muy ñaareel bu war a tax ñu def une minute leen ñaan ma boole ci nag sàkkuñu ñu ñaanal suñuy soldaar yi nga xam ne tey ñi ngi aar réew mi rawatina fële ca Casamance te chaque fois ñu dégg ci ay bakkan yu rot muy suñu armée nationale di ay jàmbaar di ay patriote waaye nag di armée boo xam ne armée républicaine la kenn du musa tok Sénégal ba dégg ni armée bi ma ngay tiire ci kaw population bi te bis bu ne ñu ngi risqué seen bakkan ngir ñun ñu am kaaraange kon ma bëggoon ñu dajale ñooñu ñëpp néew ma une minute de silence dama ne une minute de prière kenn ku ne ci sa gëm-gëm ci sa diine ñu sànni leen ay ñaan bismillah amin jerejeuf bu lol weso ma ngi nuyu suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Aydara Mbàkke mi nga xam ne këram ni ngi place bi di kilifa guñu naw guñu sopp gu yaatu guñuy ñaanal di ñaanal réew mi sa su diko ñaanal yàlla na guddal aw fanam yokk ko yaram tek ci nak di remercier coalition yewi Askan Wi gaay dama bëgg ngeen tatchul ma les leaders de la coalition yewi Askan Wi dama bëgg gis ngeen leader yi tew fii ma seedeel leen tey liggéey leader yu ñàkk kañaan ñooy leader yi leader yu am kóllëre ñooy leader yi xam ngeen politique dafa doy waaye mun naa leen seedeel ni leader yi bokkuñook ñoog yi nga xam ne dañuy toog di xaar ku ñu àndal ci politique faqasalu ba daanu ngir ñu mun a donn ñii bokkuñu ci ma seedeel leen ni ñii ay gor lañu ay garmi lañu ay nit ñu am kóllëre lañu ànd ak ñun ànd gu rafet ànd ak ñun ci bëgg réew mi ànd ak ñun ci nangulante kenn ku ne ci ñun nangul moroomam li mu doon moo tax ku yaakaar coalition Yewwi Askan Wi tas dinga nga fi nga toog de ndax yàllaa ñu boole te li ñu tax a jóg mooy réew mi kenn ku nekk ci ñoom gaa yi nekk fële ña lay jege di la proposer di la essayer xëcc nga am sa dignité bokk ci projet bi ñu bokk mooy soppi Sénégal définitivement ba faw kon maa ngi leen di gërëm ñi fi teew ak ñi fi teewul parce que ngant am na bu loolu weesoo nag dinaa leen wax tey tuuti ci man mii faraluma koo def de faraluma ko def waaye fi ma jëm moo tax ma leen di wax tuuti ci man kenn musuma dégg ma wax ci sama bopp waaye sax saa su nit di wax war wax ci man ma ne ko wax ci man waaye tey dinaa wax tuuti ci man ndax yéen ñëpp xam ngeen ni maa ngi tudd usmaan Sonko maa ngi tudd Ousmane Sonko du Sénégalais à 100%. Nous sommes en Réumi. Yarofi, Maggefi, Djangefi. Nous sommes en Voilà, nous sommes en train de faire des choses. Yalla may ma nak ma deuk fepp ci Sénégal sama waye dur bu jigène di bawol bawol di siin siin di gànjool gànjool waaye diit fuutanke sama waajur bu góor di Casamance kon ma ne Sénégal ba mu daj amul fu may taxaw ñuy séddale te duma duma am sama wàll amut ma làq ci jamono ji ñeent fukki at ak juróom ñett 48 ans yàlla nag def ci mbaaxam daañu xëy rek yàlla def ci mbaaxam xiir ñu ci politik waaye lan moo ñu tax a dugg ci politik ñun lan moo ñu tax a dugg ci politique ndax yàlla mayoon nañu ñu nekkoon fa ñu nekk di ci fortaatu lañ cey fortaatu mënoon nañu ne cell ni ñëpp toog seetaan réew mi te bu saaku ceeb doon jar cent mille dinañ am luñ ko jënde waaye dañoo toog ak suñuy moroom ba gis ni réew mi fi mu jóge baaxul waaye fi mu jëm a ko yées fi mu jóge baaxul mooy bi ñu amee indépendance ba léegi mësuñoo ñeme wax li war a wax li war a defar réew mi ak li fi war a génne lu fi war a dog bu mu njaam définitivement waaye fi mu jëm moo ko yéesati ci àdduna boo xam ne tey réew mu ne mi ngi xëcc jëmale ci boppam bu la yàlla na too yow nga am ay njiit yoo xam ne dañuy raam wala ñuy tëdd ci kanamu tubaab yi mun nga am petrol am gaz am or am zircon am géej am phosphate am suuf waaye ci sous développement ngay dee mun nga am loo bëgg a am te ñàkk koom-koom ñàkk koppar goo moomal sa bopp ci sous-développement ak ci ndóol ngay dee ñu ne kon ñun dinañ dugg ci politique te buñ ci duggee dinañ am sañ-sañ ne lii moo doxul ci réew mi ragaluñu ci tubaab ragaluñu ci américain ragaluñu ci kenn donte nag respecté nañu kenn kenn ku nekk ci ñoom lii moo ñu tax a dugg ci politique may gërëm balaa may continuer may gërëm gendarmerie nationale ci seen taxawaayu tey ndax bi ñu Kër ba ñu ñun manifestation bi pour jàppale sécurité bi ñu li

yow nga yor nguur ne man dinaa manifester saa yu ma bëggee waaye ki ne ci kujje bi du manifester ci réew mi loolu rek ay indi problème yi waaye daje waxtaan suñu waxtaan ñibbi gisuma lu mu yàq ci réew mi bañ koy tere ñaareel bi ma bëgg a wax balaa may continuer mooy di leen gërëm yéen ñëpp ñi fi teew di gërëm bu baax de teyit teyit di leen ñaanal kenn ku nekk ci yéen mu dellu ci këram ci jàmm ndax ñu bari ci yéen jóge nañ fu sore sore te dañoo dox ak seen tànk ba yegg si ñi jóge nañ sore sore jël ay oto ñëw nee nañ nag am nañu doon ñëw polis jàpp leen booru Thiès may waa police bu ñu leen bàyyiwul ba meeting bi passé su ma jógee fii Thiès laa jëm ndax nag jaay doole bi dafa doy ci réew mi te koy moyetu di ko moyetu di ko moyetu te moom seetul dara day am fu mu toll nga won ko ni nag ëppalewu ci réew mi kon ma continuer ne leen lii moo ñu taxoon a dugg ci politique bañ ca duggé it joxuñu nit ñi xaaliss ndax yoruñu ko digguñu len ñëw ñu def politique di xese xëcc nit ñi tek ko ci mbokk mo xam ño bokk dekk wala ño bokk xet wala ño bokk tariixa wala wala ño bokk li wala lele wala lele waye dañu ñew waxtaan ak yeen ci ay xalaat waxtaan leen ci vision ak gis-gis loolu moo ñu boole ñu ak yéen moo tax ànd boobu àndu dëgg la te àndu dëgg moo mën a soppi réew mi loolu tax fu ñu leen woo ngeen wuyu ñu fu ñu leen woo ngeen wuyu ñu suñ leen laajee sax seen koppar ngeen jël seen poos joxe ma feddali lewaat leen billaahi wallaahi wa tallaahi du ngeen mus a toog ba ne am nañ déception du musa a am billaahi wallaahi wa tallaahi du ñu mus a toog ba ngeen ne am nañ déception mukk ci àdduna am na loo xam ne gor moomu ko te gëm nañ ne ay gor lañu réew mii jaral nañu lu ne waaye jaral na leen lu ne loolu moo ñu boole kon bi ñu duggee ci politique di waxtaan ak senegal yi ah métti na de début bi ñett ak ñett la woon muy ñëw ndànk-ndànk di ñëw ndànk-ndànk gis ngeen ni yàlla bu nammee def dara ci ñu jiite ay mbir day xotti xolu nit ñi dugal leen fa loolu lañu yàlla may suñu digganteeg senegal du suñu mberit bis mu ne ma wax ko ñi fiy def politique yépp gënuñu leen ëpp ñu leen njàng ëpp ñu leen alal ëpp ñu leen xam-xam waaye yàlla bu namee ay mbiram moo koy jaarale fi mu koy jaarale bi loolu amee nag Macky Sall ak ay ñoñam ne faw rek ñii ñu faagagal leen faw rek ñii ñu pexel leen njëkk nañu dem ne nañu jaar fañ doon jaare gaay yi fañ doon jaare gaay yi mooy lan mooy nañ dem càmbar ndax fi Moussa jaar di fa liggéey am na fa luñ fa mën a am dossier bu ñu teg ci ndondam ba mën koo faagagal yóbbu ko rëbës dem nañ impôt domaine bi ma woon amul impôt bu ma mës a jaar te demuñu fa conservation foncière bu ne dem nañ fa di ndax ay chef d'entreprise ne len de vérifier sangam est-ce que daf len lajone Khalis? wala Vous ngeen ko xaalis mu nangou wër nañ fu ne gisuñu lu toll tarfata ay xam ngeen ndax lan xam ndax lan alalu may def loo xam ne ëllëg dinaa taxaw ak sama boroom ñu naan ma dërëm bii fan la jóge loolu àdduna àdduna jaral ma ko musuma jël dërëm bu ma moomul ci àdduna musuma koo def te duma ko mus a def abadan parce que amul lu ko jar te yéen it ëllëg bu ñu yàlla dénkee réew mi ñu ànd ak yéen di liggéey bu leen dara jaral ngeen jël xaalis bu ñu bu ngeen moomul rawatina nag alalu mbooloo li ñëpp bokk ba ko fa la tudd bi ñu demee ba tële ci loolu ñu nekkoon nañ ko diaboliser nañu yàq deram daldi di yónne ay mission fu ne dem seeti kilifa gu ne dem ci tubaab yi suñu demee ci ay kilifa ni leen kii salafiste la kii tarixa lay bañ kii diine la bañ a dégg kii bis bu nekkee président la république dégg nga ma am màggal gàmmu sax dina ko fi tere fu ñu dem wax fa wax wax wax yàq der yàq der yàq der waaye lu ñu def def def yàlla na saxal lu ñu def def def yàlla na saxal ñu seeti tubaab yi ne leen kii tubaab lay bañ a dégg bis bu fi nekkee tubaab dootul dugg Sénégal ñëpp lay génne ci réew mi waaye tubaab yi am nañu xel de te ñoom ñëpp bokkuñu it waaye li gën a am solo du tubaab ya ñun neexaluñu tubaab seetuñu xam ngeen li am solo mooy yéen askanu Sénégal tey bëri na tey ñu teew fii ay at ci gannaaw dé xam naa ni ñu ci bëri ay at ci gannaaw bu ñu déggaan Ousmane Sonko sax boo moytul liñ ciy teg du doon lu rafet xam nga loolu mooy mbirum yàlla yonent yi yàlla bu leen yónni bu ñëwee di commencé wax kenn du leen déglu suñuy wax sax nit ñi dañuy fatt seen nopp mais gis nga dëgg boo ci nekkee te gëm ko liy génn ci làmmiñ te di dëgg day dugg ci xolu nit ñi comme ndox ni muy duggee ci suuf bu tawee loolu moo andi lii kon ñu nekkoon entreprise de diabolisation bi jàppul sëriñ si ñu demoon gis di leen wax lu ñaaw ci Sonko gëmuñu ko sénégalais yi ñu doon gëmloo gëmuñu ko tubaab ya seen intérêt la ñuy xool De Gaulle les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts Vous voulez l'aider ni un intérêt fi Sénégal Nous, ñu naxta ñu Ousmane Sonko parce que askanu Sénégal Ousmane Sonko la ñu àndal dina un ram, ci kanam Ousmane Sonko nous moom Non, la di doxali wi Rek am solo la souveraineté appartient au peuple Moyen, yeen peuple rek mo am solo ku bëgg defal rew fexel ba jubok sa askan fexel ba degok sa askan fexel ba sa askan nangul la waye fogg ni yor nga armée yor nga gendarmerie yor nga police yor nga justice ku wax nga dor waye askanu Sénégal kan mo bëgg makissal kan mo bëgg makissal kan mo kan top Macky Sall dama ne kan mo fi top Macky Sall parce que dang ko gem parce que de la doy ñi ko topp ñëpp xaalis bu muy séddale moo tax ñu top ko ken ci bu won meeting fi te génnewul xaliss bu dul jeex kenn du ñëw te bu génnee xaalis ku ñëw 4 heures 5 heures jibbi nañ ñoom ñëpp kenn du ko fi toogal ba heure bi loolu lu ma xam la yéen ay gor ngeen ay patriote ngeen yéen ñu bëgg seen réew ngeen te bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk bu leen jàpp ni jaamu yàlla julle koor ak yooyu rek la de waaye bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk ndax nag yàlla bi muy wax ci sooratul baqara inni jaayilun fil ardi xalifa

bu ñu demee ci kanam borom bi dinañu laaj ñàkk ngeen defoon ak seen réew moom ma leen bàyyi woon yéen loolu ngeen moo tax ngeen toog fii ba heure bi loolu nag la Macky Sall ne tey foog mu dakkal ko loolu la Macky Sall ne tey faw rek mu dakkal ko bi ñu demee ba gis ni diabolisation bi doxul ñu gis ni lañ doon wër ci ay dossier pour mën na ne mës naa jël dërëm fii wala la ne amul ñu ne kon nañ ko organiser ab complot déglu leen ma bu baax ma wax leen ñu ne nañ ko organiser al complot fi ñu fële moo gën a bon fi ñu njëkk a sax mbokk yi ñaari at a ngi nii waxuma ko pour jooytu de du ngeen mës a gis Ousmane Sonko jooytu du ngeen ko mësa dégg xam ngeen ndax lan man yàlla laa gëm yàlla dama koo gëm wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxoom lu ñëw rek mooma bu neexee mooma bu naqaree moom la bu neexee الحمد لله بنعمة رك بو الحمد لله على كل حال واي لب موم لا رك